salam alaikum senegal ah aw Reug rek moy def vidéo bi di sant ak gërëm rek waaw ah, di sant wa Senegal moy fuma ah, ma waaw di len sant bu baax a baax a baax a baax ku si daggee kilifa gi ba si ku si tuut yi maa sant bu baax di len gërëm ak kilifa diine yi kilifa yi ah ñepp ma ngi leen di sant bu baax di len gërëm wax leen nag ñaani exina exina ci jamm si jamak ak salam ci barke sayna mohammed ndax waaw Reug rek dafa teewul ji won senegal te senegal ko kon ñaan yëpp egsi na maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sénégalais aw ma seen fay je si fier de doon sénégalais waaw ñun ñëpp ñoo bokku ndey ñoo bokk baay kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ah di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm képp kuy soit citoyen Sénégal rek maa ngi lay ñaanal yàlla suñu borom defal la jàmm kontaan naa sant naa leen gërëm naa leen waa Sénégal yëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërëjëf jërëjëf Sénégal.